fekkonte ne man damaa nekk ragal wala ma nekk tapet wala ma nekk kuy dellu avance yaakaar naa te toog gi ma toog fi di ma ko def ndax fa façon xooqtal bu ne dégg naa ko façon tiital bu ne dégg naa ko façon wax bu ne dégg naa waaye ma leen xamal ne leen ku sëriñ Touba nekk sa maam lan ngay ragal ku Serigne Fallou nekk sa maam lan ngay ragal man maam Thierno Birahim daamal daaru mooy sama maam na moomuma ko de mais dafa nekk lu am Serigne Mbacke Bousso nekk sama maam kon lan la jën di ragal ndox kon tey su ma waxee damaa war a wax su ma waxul damaa war a wax surtout ma ci koo xamante ne dañu laa fekk fa nga nekk ñu tooñ la jaay la doole ndax ku nekk xam na ne ni ñu ma jàppee booy na ci noppi Sénégal yépp dañu maa fekk dama dañu fekk sama biir oto kiit kidnappé ma jaay ma doole forcé ma daan may tëj te yen ñëpp xam ngeen ne ci ay tappaleeki fen rek lañ ma tëje tappaleek fen yooyu ñu ma tëje nag ci ay tappaleek fen dong tamit lañ ma bàyyee kon jàpp la ci ay fenn tëj la ba noppi ñëw ne la doo wax loolu kon ban réew lañ nekk kon man su ma waxul rek dictateur bi bi ñu fi installé kon man damay ànd ci loolu te loolu duma ci ànd mukk ndax man fu ma dëgg fekk rek fa la may bàyyi. mu neex ma loolu nag ndax man moom ku ma jàpp ci dëgg jàpp ma ci loo xamante ne nekkul yoon fierté laa ci am fi ni damaa am fierté ne man damaa génne kaso ndax dañu maa tooñ ñu tëj ñu ñu la ma fi tëj 4 mois bi ñu ma tëjee 4 mois. proposition bu ngeen yaakaarul rek ñëw nañu fa wax ma ko ne ma bàyyil Ousmane Sonko ñu jox la lii nga def déclaration te pourtant ñooñu naan ma bàyyil bàyyil Ousmane Sonko Ousmane Sonko leen gën fuuf kon man am na loo xamante ne ci biiru kaso du fa nekk mukk naan maa ngi négocier ñu ne ma ah kon yow bëggoo génn man leen ak lu ñu doon rek bu doon ñaari at sax baax na ñu demaat ba ci yàgg. ñu may def la waat beneen audio ne ma naa def audio boo xamante ne damay wax ne bu ma génnee du def déclaration duma leen attaqué du ma wax dara su boobaa ñu man maa bàyyi mooy ci maanaam korite gi mën na leen bu fekkente ne loolu la ma xam ne kon di ngeen ma mandat dépp waaw dinaa fi yàgg ñu aan ma fay bàyyiwaat te li ma gën a métti ci loolu mooy dañ ma euh, Samba Bathily dafa maa téye 2 mois quinze jours yoo xamante ne nangul kenn gis ma du bàyyi du nday du yaay du mbokk du xarit du jeg jegeñaal du sama avocat ku ñëw mu bañ la du la may visite te bu keneen ñëwee bokk APR wala mu jege APR mu may la nga ñëw visiter ma ba noppi di jéem a négocier ak man naan ma bàyyi ñii ñi dañ laa seetaan ñi baaxuñu ñi nitu fitna lañ xool leen loolu maanaam yéen askanu Sénégal yéen laa wax ne xool leen loolu ki nga xam ne ay mbokk mënuñu koo gis ay jegeñaal mënuñu koo gis ay avocat mënuñu koo gis nga autorisé ñeneen ñoo xamante ne benn bokk bokk yaakaar lañ bokk ñuy ñëw di ko gis kon dama naan Sénégal kon man man na maa wax ne dëkk bu jaar yoon yoruñu ko dañoo yor njiit yoo xamante ne dañuy maanaam gëlëmal kon ñi nga xamante ne dañ leen a jàpp ñuy ñu ne dañ leen a tudde ay manifestant muy xale yi nga xamante ne cinquante lañ fi ne ni ña nga fa te après dis février boobu am na ñeneen ñu jàppal ñoo xamante ne dañ leen a bàyyi nga xamante ne ñun ñun ñu jàppoon nga xam 7 mois la ñu te xale yi ñu ngi seen 8 mois fi ne nii te ba tey ji maanaam bàyyeeguñ leen te xale yi lu ñu leen jàppee yéen su ngeen ko déggee sax ay reetaan daf leen jàpp ndax koo xamante ne dafa dugg ci oto Mbàkke Tuubaa di ñibbisi ñu arrêté Mbàkke tubaab bi wàcce nit ñi jàpp la daal di yóbbu wala ñi nga xamante ne dañoon ramasse guddi gi policier de dañoon ramasse jàpp ay nit boole leen ci manifestant yi daan ne ay manifestant lañ am na koo xamante ne mayëpp maanaam Sénégal moom la sol moom lañ ko jàppee ne ko da sol maillot Sénégal moo tax ñu jàpp la am koo xam ne dafa takk drapeau vert jaune ñu ne li nga takk moo tax ñu jàpp la am koo xamante ne Xaadim Fay nga xamante ne mason la ñu jox ko santé mu koy liggéey ànd ak doomam wàcc ñu jàpp ko jàppaale doom ji ngi nga xamante ne Xaadim moom mu baayam da doon misère loolu di naqarlu loolu ba xëy daal di faatu muy du Fay te ni papam faatoo noonu noonu la ñaan baara sëy papa moom tamit yaayam tamit noonu la misère jàpp gi giñ leen jàpp tooñ leen ba xëy daal di faatu noonu mu amee ci baara moom noonu la amee ci ku ñaan maam góor cuun noonu la amee ci tamit ku ñaan maanaam dibaa ñoom ñëpp seeni i wajur génn na fa àdduna ci aw naqar ak tiis kon Macky Sall li mu teg ñooñu xol bu naqari boobu li mu teg wajur yi li mu teg li nga xamante ne maanaam ay jege lañ ñaa lañ ay xarit lañ àq jooju yàlla na ko dal àq jooju mu teg bépp Sénégal boo xamante ne dangaa ñëw sa yoon nekku ci ñu jàppale ne la yow da ngay manifester tey mois àq jooju Macky Sall yàlla na ko dal kon damay wax ne xale yooyu ñu jàpp nañ leen bàyyi defuñu dara dañ leen a tooñ ba noppi tëye leen ci loo xamante ne amuñu leen te ñooñu Touba lañ dëkk ñii dëkk Mbacke ñu nekk ay doomi Touba nekk doomi Mbacke kon loolu lépp day firndeel ne Macky Sall li mu doon wane rek ci diggante Touba diggante ak Touba mooy moom bëggul waa Touba ndax bu mënee jàpp ndawi Touba tëj jàppi euh, sone Touba yu tëj te ba tey ji dégguñu kenn ku ci wax kon loolu ñaaw na trop te ñiñ jàpp ci ay détenu bari na te ku ci nekk maanaam am nga sëriñ kon damay lancer rek sëriñ si nañu wax wax ak Macky Sall ñu bàyyi xale yi parce que xale yi fee ñu nekk sonn nañ fa te it ah jaaxle nañ lool tamit de te ku leen fa wàllu ñu jël te man damaa teg sama loxo ci kaamil waat ne defuñu dara kon nag am na loo xamante ne day bëgg a metti kon tey jii mu am loo xamante ne maanaam dama ko bëgg a leeral ndax bi mooy sama ñett yoon ñu may ñu may mandat dépôt te mandat dépôt yi dara wër lu ko ludul ak tooñ ndax bi ñu may njëkk jàpp Marième Faye Sall laa porté woon plainte maanaam CREI muy loo xamante ne lu leer la loo xamante ne lu ma teg sama loxo lu preuve bu leer mu nekk ab sàcc bu mag nag ma pelent ko pelent boobu nag jóg ñu proposé ma xaalis bu ne ne ma pour naa naa naa dindi pelente bi ñu jox ma xaalis bi ma lànk ñu proposé ne ma naa exilé wu dem Angleterre ñaari at ma taxaw ma leen man su même bu may dee sama réew laay dee ñu ne ma kon Marème Faye nee na day xeex ak yow bi bi ñemaa day xeex ak yow 15 jours lañ ci teg ñu daan may jàpp ci dossier boo xamante ne ba muy xew sax man maanaam fekkuma Touba ñu ne man maa ko def jàpp ma tëj ma ci 8 mois yóbbu ma chambre criminelle daan may àtte daan may setal xool leen boobu tooñ ki nga tëj huit mois ba nag àtte ko da koy setal beneen bii ma jàppaat mooy affaire élection yi ñu ne man maa yàq bureau ya te loolu lépp dara amu ci bañ may ate sax ñi ñi doon àtte ñoom ñoo demandé ne nañ ma setal daan ma ci tëjaat 4 mois daan may bàyyi bii tamit noonu ñu ñëw tëjaat la 7 mois xëy xëy xëy xëy daan lay bàyyi kon bis naka tey damaa jël ndogal pour porte plainte état bu maam Sénégal parce que lii moom day dakk jàpp bu la neexee tëj bu la neexee bàyyi lii moom dootuma dootuma ko nangooti sama àdduna wala bu ñu may jàppati dina deme neneen kon nag yéen ñi ñu yebal naa leen dem leen jàppi maanaam Assane Mbacké bay boo na ngeen xoolaat bu baax a baax a baax parce que su boobaa moom leneen leneen la ñuy wax ki nga xamante ne nag mooy Sidna Ousmane Sonko fu ñu jaar parce que ñun mooy sunu candidat mooy sunu leader tey ci politique tamit moom lañ ci àndal ci gëm-gëm ak ci engagement ak ci lépp kon man ma jàpp ne Ousmane Sonko bu duggee kaso bëgg Sénégal moom moo tax bu duggee kaso xeexal am réew moom moo tax kon man ma jàpp ne ñun Sénégal yi war nañ koo mën a mën a delloowaat te niñ ko koy dellowaat leen rek la muy taxaw résister xeex loolu rek mooy tax Ousmane Sonko liibu te xeex boobu nag maa ngi ci woo bépp sénégalais di ci woo bépp patriote ñu taxaw xeex pour Ousmane Sonko génn ci réew mi parce que parce que euh, euh, Ousmane Sonko dañ ko war a génne kaso ak lu mën a xew te loolu leen mun ñu ko may lu dul sunu force suñu doole ñu ànd booloo nekk benn woote ay marche woo woote ay manifestation fexe ba tànqal Macky Sall ci réew mi fu muy dem fu ne ak ci diaspora bi ak diaspora ci fépp Ousmane Sonko nag moom dina ko bàyyi ci nii wala ci nee wala boog man dinaa xeex ba Ousmane Sonko génn wala ma xeex ba fekk ko ci biir maanaam kaso ba te lépp lu mu laaj nag dinaa ko def bu leen neexee nag nañ ñëw jàpp yóbbu waaye lii moom man maa leen ko wax na ma ci xeexu Abdou Karim Wade di xeexal PDS lu ko raw dinaa taxawe ci xeexu Ousmane Sonko taxaw xeex ba mu génn kaso wala ma taxaw xeex ba ba daa fekk ci biir parce que biir gi jóomul kenn te képp kuy patriote ku ne war ngaa jéem a xantewoo pour ëllëg nga ne ba ñuy jàpp Ousmane Sonko di ko sonal ci nguurug Macky Sall di nguurug dictateur Macky Sall man taxawoon naa sa wala sama doom taxawoon na wala sama sët taxawoon na doon xeex pour liberté Ousmane Sonko kon kaso bii du dara maanaam bu leen kenn tiital ci ay kaso ay léeg-léeg léeg lii parce que kaso moom maanaam moo ëpp sax sécurité maanaam bitti gi kon nag bu fekkente ne ñoom liñ jël arme muy seen armo muy kaso def ko arme di ko xeexee man Assane Mbacké man moom laa gën a ñeme parce que ku jaar ci daara jaar fu metti kaso du la jaaxal kon nag maa ngi ci woo bépp sénégalais di ci woo bépp patriote dinañ jóg taxaw xeex jaamaarlu ak Macky Sall ndax nguur gi fi nekk dañoo sonal képp kuy sénégal ak ku mën a doon bu la laalul laal na sa mbokk wala sa xarit wala sa jegeñaar wala sa wayjur te lii fi am ni musu fee am kon nag nañ jóg taxaw jàmmaarlu ak Macky Sall ne ko arrêté te nag dafa war a arrêté parce que fu laal mu nooy fu mu laal mu nooy bu bu yàggee dictateur la fi installé te loolu mi ko fi commencé di kon nag loolu ñun ñoo ko war a mën a bañ kon nag maa ngi leen ci woo yéen Sénégal yëpp teyit it Ousmane Sonko nga ànd ak moom am dara xëy suba daat koy war moom yomb na lool. ndax am na ñoo xamante ne ginnaaw yàlla bu ñu nekkee maire wala ñu nekk ay député wala ñu nekk leneen ginnaaw yàlla Ousmane Sonko moom moo tax pourtant le 13 juin 2022. barke Serigne Touba laa woo laa laa woo Ousmane Sonko ñuy waxtaan man ak moom 2022 de barke Serigne Bamba ma ne ko Khalifa moom ak Macky Sall maam réeroowuñ ma ne ma déet waay ma ne ko waaw ma ne ko lii ma lay wax ding ci am firnde ma ne ko dina la bàyyi te boobu yàgg na 2022 ma ne ko dina la bàyyi tey dina nekk candidat bi ci des mooy mooy nekk candidat wu maanaam tubaab yi. tey lama ko waxoon lépp tey jii ndikk na parce que Khalifa Sall dafa wor dafa trahir mais nag man xalifa ak waram moom bettu ma ndax man mii rek damaa daj ci moom lu ne xeexal ko fu ne daj ci moom lu ne teewul ba muy wor man la njëkk wor waaw bi mu génnee man la njëkk wor kon yaakaar naa ne bu waree Ousmane Sonko tamit daa jël aw mañanaan rek waaye système bii fi nekk daal ñu fi installé système bi lañu ñu war a changé te may wax Sénégal yi ne nañ ubbi seen xel yi xippi seen bët yi xool élection yii di ñëw mu neex Macky Sall mu naqari Macky Sall Ousmane Sonko day bokk far force parce que li tax Ousmane Sonko di bokk mooy ñun Sénégal yi parce que dafa ne man sama bokk ci élection yi du Macky Sall du ay conseil constitutionnel wala yooyu yéen ñi nga xamante ne yéen askan wi ci yéen la aju te askan wi ñëpp nee nañ waaw nee nañ Ousmane Sonko la kon nag comme que nee nañ waaw ñun ñooy porté combat ba mu bokk yi far force mu neex ko mu naqari ko kon nañu waajal ñu ñëpp waajal parrainage yi waajal tamit élection yi fexe ba daal keroog ëllëg 25 février ñu ne Macky moom yóbbu nañu xam nga élection yi 24 mais la vingt cinq rek ñu ne moom Macky Sall yëkkati nañ ko ba ci kaw dóor suuf parce que loolu rek la mérito kon képp ku ànd ak moom teggi leen ko képp ku far ak moom teggi leen ko képp kuy wax ndax Macky Sall bu leen ko xool seen réew ngeen yor te da ngeen cee bëgg changement te sasan bi ngeen ci bëgg force régime bi dat fi jóge force tamit système bi tamit dat fi jóge te pour xeex système bi mooy nga xeex Macky Sall kon loolaay woo ci loolaay woo askan wi di ci woo Sénégalais yi di ci woo ñëpp wax dëgg yàlla li nekk ci xol bi làmmiñ bi sax da ko mëntu tudd ndax sama xol dafa jeex tàkk ndax réew mi ni mu mettee ndax te ji boo xoolee xale yi xale yi jël gaal gi ndax lan ñàkk yaakaar xale yi nga xamante ne ñi ngi ñi ngi dee ci géej gi seen ay ministre génn duñ ca sax wax ba jaale leen wala di wax ba metti wala mu dem ba seet leen manifestation yi am ay nit gaañu ay ministre jóg koo xamante ne dafa bokk feneen mu dem jaale ji demul ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñoom ñoo jaale ji eh, ñoom ñoo gaañule mu mel ne léegi Sénégal kon dafa am ñaari Sénégal Sénégalu Macky Sall ak Sénégalu maanaam askan wi boo boo boo bokkee ci askan wi boo gaañulee ci ay manifestation yooyu duñu duñ ñëw daal lay jaale si te pourtant boo bokkee feede nekk nervi ba bañ reyee la ñu sol seen i koppati sol seeni i mbubb dem naa ña ña ngay jaale ji kon ñun ban Sénégal la nekk ban Sénégal la